Eh, te fas yéene am najaax ci musaabaqa bi incha allah vidéo bi xamal ne mën na laa yitteel bu baax a baax a baax a baax kon mbokk mi dañ lay ñaan rek nga topp vidéo bi incha allah ba keroog eh, jeexantal bi te lépp loo xamante ni am nga ko ci ci ay laajte incha allah boo ñu ko bindee ci commentaire yi des na ci ñëwaat incha allah ci yeneen vidéo ndax yéen ko tax a jóg incha allah mbokk yi manhajiya tahlil nas tarbawi am na ay misaal yoo xamante ni tamit mënees na ko cee joxe mooy ñu taxlil benn don woon leen dëgg-dëgg niñ koy taxlilee waaye ti eh, bu dee ci eh, dars bi incha allah li ñu concentré rek mooy xamle lan mooy eh, manhajiya taxlil nas tarbawi muwajjah nuñ koy defee ak moom mooy lan ba pare ak manhajiyaam mooy lan mooy yoon wi ñu koy jaar mooy lan. ak yan ak yan mooy associations yi nga xamante ni moom la ñuy soxla buñ koy buñ koy def ak euh, fenn fu nekk buñ fu ñëwee lan ak lañ fa war a def incha allah rabbal alamin kon bu fekkente ni mbokk mi yaa ngi ñuy doog a dab ci seen bi da ngay bës bouton abonnement bi bu dee arab ishtiraak la bu ko defee nga bës cloche bi incha allah lépp lu bees rek ci seen bi da nga ci mën a jot te aussi tamit mun nga di dugal say commentaire ci suuf. di dugalaale say laaj inshallah lépp lo xamanteni yittel na la boko laaje après suñu yeneen vidéo dinañ ci ñëwaat kon tay suñu dars tay mu ngi wara a nekk ci manhaj at tahlil nass tarbawi muwajjah lan moy lolu motax mu ne la fi fii nasu tarbawi al muwajjah نص مزيل بسؤالين أو أكثر هدفه توجيه المترشح للامتحان إلى تحليل ومناقشة أطروحة نص وفق تعليمات محددة tadmanu adam al xuruj an al mawdu loolu mooy lan mooy nas tarbawi mojja saa boo ko gisee mbokk mi boo demee ci imtixaan bi bëgg xam nas bi ba xam nas tarbo tarbawi mojja la xoolal lii dana wax ne nas la boo xamante ni muzayyalun mooy dañuy indi ci suufam mooy nas bi bu jeexee dañ koy dañ koy catal dañ koy catal muzayyal mu ngi jóge ci kalimatu azayl mooy geen mooy luñ geenale boo mooy loo xamante ni ci mujjanteelam dafay am li nga xamante ni moom lañuy ñuy ñaari sual mooy dafa am ñaari sual yi nekk ci suuf wala boog lu ko ëpp en tout cas daal na nga xam ne saabu bu nas bi jeexee dana la laaj ñaari laaj wala lu ko ëpp sax eh, hadaf bi ci loolu hadaf bi ci lu tax ñu la koy laaj mooy lan mooy ngir mën a orienté ki nga xamante ni moom mooy def imtixaan bi mooy mutarashih bi def imtixaan bi mooy dañ koy orienté ngir mu mën a taxlil wala mu munaqasha eh, laaj yi nga xamante ni ñoom ñoo ci biir eh, nas bi solon li nga xamante ni moom mooy taalimaat yi ñu joxe taalimaat yi tamit incha allah bu ñëwee ci nasa tatbiix bi danañ la wax taalimaat yi moom taalimaat yi du dara lu dul mooy laaj boo xamante ni dañ la koy laaj euh, ngir nga bañ a yóbbu nas bi ci beneen majaal budul majaal boobu masalan mooy dañ lay tënk mooy dañ lay laaj benn laaj ñaari laaj ba lu ko ëpp ngir lan ngir bëgg laa orienté ngir nga mun a taxlil moo xam laaj bi dañ la ko dañ laa taxliloo wala nga munaqashe wala boog moo xam laaj bi dañ la ko munaqashaloo waaye ala kulli xaalin moom ci suuf gi danga am ay taalimaat yoo xamante ni mbooleem bind bi nga doon bind waroo génn li nga xamante ni moom mooy taalimaat yooyu moo tax mu ne muhaddad yoo xamante ni dañ koo taxdiid loolu nag mooy moom mooy garanti ngir ki nga xamante ne moom mooy mutarase bi mu bañ a génn mawdon bi kon gis nga boo bañee def xaariyal mawdon da ko xool taalimaat yi ci suuf taalimaat yi ci suuf mooy lan mooy ñaari su'aal yi nga xamante ni moom la ñuy jëm ci ci ci ci suufu nas bi génne ko ci wala li ëpp ñaari su'aal waaye en tout cas daal sixa su'aal lay doon yoo xamante ni ñaar lay doon wala lu ko ëpp ngir lan ngir mën a euh, garantil ki nga xamante ni moom mooy def imtihaan bi mu bañ a génn li nga xamante ni moom mooy mawdon كن النص التربوي الموجه نص مزيل بسؤالين أو أكثر هدفه توجيه المترشح للامتحان إلى تحليل ومناقشة أطروحة النص وتعلي ووفق تعليمات محددة تضمن عدم الخروج عن الموضوع كون لول موم موي ليغا خامتاني موم موي تعريف من هي تحليل النص التربوي الموجه كون من هي تحليل بي نكوي ديفه mu ne xat yu aaliju an nas nas bi nga tiim boo demee bay imtixaan nas bi nga tiim xat yu aaliju xadiyatan mën naa mualaja mooy mën naa résoudre benn xadiya rek nga xam ne benn xadiya lañ la jox waaye xadiya bi na nga bàyyi xel ni maanaam xadiya bi bu ñu ko bindee pare am na lu ñu laaj ci suuf loolu moom mooy taalimaat yi waroo koo génn mukk mukk mukk mukk parce que boo ko génnee da nga def xaarijul mawdu te loolu boobaa mën naa bañ a nekk euh, lu baax ci yow kon aw mustajaddan wala loo xamante ne lu bees la ci tarbiya mooy dana maanaam nas bi nga tiim di di ci liggéey nast bi mën naa am benn qadiya moom moo ko tax a jóg ngir nga taxlil ko wala boog benn mbir mu yees ci majaal ak tarbiya wa taalim wala boog ci yenn zawahir yi wala benn zahira mustajad bi mooy li nga xamante ni dafa bees yu yees ci eh, tarbiya wala li yees ci milieu sahatu at-ta'lim moy tarbiyatu at-ta'lim wala zahira wala ben mbir mo xamanteni dañu jik jik rek gis ko ñu bëgg ci ay solution di ci waxloo ay nit ñu bëré bëré bëré bëré bëré ñaare néewaa na nga gis ben nas ñu jox la ko ci imtihan lu dul ne maanaam benn ci yi mom danga ko ci gis ben bu nekk ben qadiya tarbawiya wala mu nekk mustajad tarbawi wala bok mu nekk zahira tarbawiya wala boog waddi ay mushkila tarbawiya gis nga ba tey génn ci mooy benn mushkila boo xamante ni dafa aju ci wàllu tarbiya ñu jox la ko wala boog mu nekk mu mumaarasa pédagogie ñu laaj la loo xamante ni dafa aju ci wàllu pédagogie awit didactique yi wala loo xamante ni dafa aju ci wàllu didactique lan mooy al pédagogie ak lan mooy ak didactique jëmi pédagogie mooy lan jëmi didactique tamit mooy lan bu bu dee mbokk mi bëgg ngaa xam lan mooy pédagogie hmm, pédagogie de tarbiyat wa taalim mooy lépp loo xamante ni dafay dox ci diggante jàngalekat bi ak jàngkat bi ci côté li nga xamante ni moom mooy al mahabba ak taatuf ak yu mel noonu bu dee li nga xamante ni moom mooy didactique bi nag mooy lépp loo xamante ni aju na ci diggante kiy jàng ak kiy jàngale ci ay xeetu maarif mooy li ñu war a jàng ak niñ koy jàngee masalan ci di bokk na ci didactique yi ci côté didactique mooy eh, matériel yi nga xamante ni moom lañuy fekk ci biir classe bi eh, lu mel ni table banc lu mel ni ay ay copie ak yu mel noonu yëpp da ngay gis ne day dugg ci li nga xamante ni moom mooy euh, al al al al al kii mooy loolu da ciy dugg bu dee bu boo boo sax boo déggee pédagogie mooy dafay nekk loo xamante ni dafay aju ci diggante kiy jàng ak kiy jàngale ci côté relation bii nag boo déggee didactique mooy liy aju ci wàllu kiy jàng ak kiy jàngale ci côté maarifa bii ci. côté jëflante ci walum insaniya ki jëflante nak ci walum maarifa kon ñu bàyyi ko xel bu baax baax a baax nas tarbawi bi dana am lu melni wala mu am lu lu melni ala kulli hal kon loolu tamit ki nga xamanteni mom moy mooy def tahlil bi war na koo war na ko bàyyi xel waqad yatrahu mawduan yakun hadafuhu wala boog xad yutraxu mawduan yakun hadafuhu al asas taqiyum maarif al mutarasih fi alaqati fi alaqatihi بمجال تخصصه التربوي والبيداغوجي انطلاقا من أسئلة موجهة kon loolu tamit des na la laaj ab laaj ngir lan ngir jublu ci maanaam xool yow mi nga xamante ni yaay def concours bi maanaam say maarifa lu maam lan nga xam ci matière tarbiya ak taalim loo ci xam mooy yow mi nga xamante ni yow yaa def yow yaa ne da ngay dugg ci saaxatu tarbiyataan yi loo ci xam léeg-léeg ñu laaj la laaj boo xamante ni dafay aju ci pédagogie eh, aju tamit ci natt si taxasus mooy ni nga taxasusee ci wàllu tarbiya wa wa taalim kon lii dama lay conseiller rek maanaam nga fexe ba xam maam jëmmi màdda tarbiya maanaam ci ci ci yenn ah, ci yenn mbir lay dox bu ñu la waxee pédagogie luñ ci jublu bu ñu la waxee almawaad didactique yi luñ ci jublu loolu mun ta ñàkk ci imtixaan mun mënut a ñàkk nga documenté wu parce que sa saqaafa des koy natt ci li nga xamante ni moom mooy imtixaan bi kon mënut a ñàkk nga bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy li ngay def kon loolu nag duñ la jékki-jékki laaj la ko nii rek maam laaj yoo xamante ni amul jubluwaay maam dañ lay laaj laaj boo xamante ni dafay direct asilam wajjaha xam asila yoo xamante ni min asilatin muwajjaha mooy ci ay asila yo xamante ni ci biir taalimaat yi nga koy nga ko gis moo tax saa bu bu laaj bi ñëwee yow li nga war a njëkk a def mooy boo liiree laaj bi bu bëgg xam foo jëm xoolal taalimaat yi ñu defal ci suuf mooy xeetu laaj yi ndaw lay doon ñaar lay doon wala ko ëpp comme ni ma ko waxee woon sànq kon yooyu dafa jar jar li nga xamante ni moom mooy bàyyi bàyyi xel niki noonu it noonu mën a nekk ci xaala boobu mu am al ijabatu an kulli alaxida mooy laaj bu nekk nga laaj nga nga tontu ko maanaam ci ci ab pàccam bi shakli faqaraat kon faqaraat yi ci laaj yi lay juddoo masalan laaj nañ la ñetti laaj xamal ne kon liñ mën a jàpp mooy yow war ngaa am ñetti faqra laaj nañ la ñaari laaj mooy liñ jàpp mooy mën ngaa am ñaari faqra laaj nañ lu ëpp ñetti laaj war nañoo jàpp ne war ngaa am lu ëpp ñetti faqra parce que yow li nga war a tontu mooy lan mooy laaj bu nekk fexeel ba indi ay maalumaat yu bëree bëree bëri dajaleel ko ko ci benn li nga xamante ne mooy benn benn faqra fin ci jamin taam mooy mu am relation boo xamante ni maam duggalante bu mat sëkk masalan bul wax bul maam laaj bi laaj bu njëkk bi masalan bu dee ñaari laaj la bul tontu laaj bu njëkk bi aw nee ba noppi laaj ñaareel bi ñëw te nuroowut ak laaj bi nga xamante ni moom mooy laaj bu laaj bu njëkk bi loolu boo ko defee erreur lay doon ci yow mi nga xamante ni yow yaay def li nga xamante ni mooy imtixaan bi na nga fexe ba faqaraat yi faqara bu jugee bu nekk bu ñu duggaat ci beneen faqara nga fexe ba faqara boobu am relation lu mu gàtt-gàtt ak li nga xamante ni moom mooy faqara bi ko bi ko jiitu mënu cee ñàkk loolu mënu cee ñàkk ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax fin si yaamin taam maal iskaliyatil am mooy problématique bu mag bi mooy liñ teg muy ab problème buñ buñ bëgg jàngat wala ab xadiya buñ bëgg a jàngat wala al mustajad bu mën a bëgg jàngat wala zahira buñ bëgg a jàngat wala loo xamante ni dafa aju ci tarbiya ak taalim wala boog mumaarasaat yi nga xamante ni ñoo aju ci wàllu pédagogie wala didactique yooyu noonu mooy iskaliya ama boobu problématique bu mag boobu tax ba ñu laaj-laaj bi maanaam faaw li ngay bind ci faqaraat yi mu am mu duggalante ak moom ba nga xamante ni kenn maam kenn du liir li nga bind ba noppi naan kii bindul ci mawdon bi kon na nga fexe ba bind ci mawdon bi ñu la laaj mooy munu ca ñàkk awi al maarifa al tarbawiya allati yuaalijuha an nas wala book xamee bi nga xamante ni euh, jëm na ci wàllu tarbiya bi nga xamante ni nas bi moom lay moom lay parce que moom moom nee na la awadiya mushkila tarbawiya parce que loolu mën naa ñëw ci laaj yi wati ay bo xamanteni ab tegin bo xamanteni da fay aju ci eh, jëmmi ak tarbiya nga war ko def li nga xamanteni mom moy eh, tahlil mualaja ko solo ni nga bëgge ci teunk dal moy amna benn manhaj ya bo ñu boo xamanteni yow ni ngay tonto waro genn anam gu mel non parce que fenn fu nek dafa am luñu la laaj amna luñu lu muqaddima ak ard ak khatima comme ni nga ko xamé waye muqaddima bi ci nastar bay mu amna ay éléments yu ci soxla yooyu danañ ci ñëw léegi art bi am na ay éléments yuñ ci soxla pour mu ñëw ci xaatima bi tamit am na ay éléments ci soxla pour mu ñëw ci kon yooyu dafa doon ay mbir yoo xamante ni ta ñàkk ci ki nga xamante ni moom mooy def li nga xamante moom mooy imtihaan bi kon moo tax mu ne wa yumkinu fi hazihi al xaala al ijabatu an kulli sualin ala xida mooy lan bu fekkente ni laaj yi dafa nekk ñaari laaj na nga tontu laaj bu nekk ci ab pàccam loolu nag da nga koy def bi shakli faqaraat mooy comme ay faqaraat nga koy def xam nga lan mooy faqra faqra mooy mooy benn fikra bu ñu moo alaja ci benn mbind ah, euh, bu ko defee boo noppee na nga fexe ba faqara bu njëkk bi ak faqara bu ñaareel bi am relation te aussi tamit na ba faqaraat nga bind yëpp am insijam tam ak iskaliyatul am mooy iskaliya bu mag bi mooy la taxoon ñu tënku ko xëy na lool bu ñëwee ci benn namusaj bu ko bu ko laajee incha allah des na mën a leeral loolu yëpp ba ñu gën ko mën a comprendre incha allah waaye almuhim moom li ma li ma lay ñaan mooy na nga fexe ba documenté si ci matière ak tarbiya wa taalim balaa ngaa dem fenn sinon da ngay sonal sa bopp rek. mën nga dem ci kii bu njëkk bi jàll ki ñaareel bi tamit nga jàll waaye waaye mën ngaa mën nañ laa téye ci yoon wi ci ay détails yoo xamante ni mënoon nga koo régler ci benn semaine ci ñaari semaine ci liir bi nga war a liir matière bi nga xamante ni moom mooy euh, matière ak tarbiya kon euh, loolu nag da nga koy def ci man xëjee bii di ñëw am na lu ñu wooye muqaddima muqaddima baa ngi nii neen wayetimu muqaddima bi liñ ci soxla rek wayetimu fiiha bi saklin muqtadab jiddan mooy ci anam goo xamante ni gu gàtt lool muxtasab mooy xasiir bu gàtt lool lii di mooy taqdimu al mawdu mooy e, joxe ma mawdu bi wane ko ne mawdu baa ngi ni nga daal di koy xamle xamle gi da nga koy tàmbalee minal kull ilal jus lu am solo la moom la ñuy woowee ay itaar al am léegi minal kull ilal jus masalan bu ma la doon jox misaal tey jii ñu ngi may waxtaanloo ci football mais man fi ma war a fi ma war a tàmbalee mooy lan mooy sport parce que football dafa nekk ci biir sport moo tax mu ne minal kul ilal jus lu noonu fi mu doon mawduwaat yëpp buñ la mën di jox da ngay xool la ko tiim ca kaw mooy ci madda ba mu bokk moom nga njëkk nga njëkk a euh, présenté madda boobu taarif ko ba pare ba keroog nga koy jot moom mu nekk euh, jus u ci biir loola. حتى الوصول للموضوع المراد معالجته ba nga keroog nga yegg ci mawdoo bi nga xamante ni moom nga bëgg a muaalaja moom nga bëgg a taxlil wala moom nga bëgg a munaqasha tarxu ishkaliya dafay xew ci li nga xamante ni moom mooy muqaddima muqaddima kon li ciy xew ci lu gàtt rek mooy mooy présenter mawdoo bi mooy indi mawdoo bi présenter ko wane ko nii présenter ko ci anam goo xamante ni anam gu gàtt lay doon niki noonu it nga def li ñu woowee tarxul iskaliya tarxul iskaliya mooy lan mooy teg ay laaj teg ay laaj teg ay laaj mooy laaj ay laaj aw awil iskaliyaat lati yuaalijuha nas wala boog ay problème yi nga xamante ni eh, jëmmi nas bi da koy eh, mualaja mooy nas bi mën nañ laa indil ay problème jox la ko mën nañ laa tamit créer loo ay problème boo déggee tarxul iskaliya mooy lan mooy lu amul iskaliya la ñuy tarxul iskaliya waaye lu am iskaliya kenn du ko tarxul iskaliya waaye lu amul iskaliya la ñuy tarxul iskaliya lu am iskaliya nag kenn du ko tarxul iskaliya hmm? allati yu'alajuha an-nash iskaliya bi nga xamante ne nas bi moom lay mu'alaja da ngay gis ñoo xamante ne dañ lay wax ne tarxul iskaliya tarxul iskaliya da ngay xool ba xam nas biñ la jox am na iskaliya wala amul iskaliya bu amee iskaliya noo maam nu ñuy dóoree iskaliya ci kaw iskaliya loolu mënut ta nekk mbokk yi moo tax fi mu da ngay xool nas bi bu baax a baax a baax a baax a baax xam iskaliya bi fu mu nekkee nga euh, topp ko kon niki noonu it wa takunu hiya al asilatu al matruha fi nas al mawdu ishkaliyaat yooyu moom mooy nekk li nga xamante ni mooy asila yi nga xamante ni moom la ñu laaj ci biir li nga xamante ni moom mooy euh, jëmmi euh, jëmmi mawdu bi jëmmi jëmmi tam bi ci jëmmi kon loolu day mbir moo xamante ni lu mat a lu mat a bàyyi xel la lu mat a xel ndax lu mënta ñàkk la mooy question yooyu mu ngay def ci muxaddima bi question la yoo xamante ni mënta ñàkk mu faw rek nga def ko ndax question yi après bu ñëwee ci aada bi deneen wax li tax question yi am solo ndax question yooyu ngay ngay ngay làkk noonu ci muxaddima bi question bu nekk da nga koy ber mu nekk benn faqra kon boo ma laajee fan nga fan laay jëlee ay faqra ma lay tontu ne la. ci question yi ngay làkk ci biir muqaddima bi ci ngay wut ay faqra question bu njëkk bi nga def ko benn faqra question ñaareel bi nga def ko benn faqra bu ñetteel bi noonu bu ñeenteel bi noonu léegi faqra bu nekk na nga fexe ba boo jóge ci faqra di dem ci beneen faqra nga fexe ba ba rabtu ko ñoom ñaar maanaam maalumaat yi doon benn mu mel ni ay maalumaat yu continue la kon loolu mënta ñàkk kon bu fekkente ne ñëw nañ ci ard bi ard bi liñ ci laaj wa fii yaqumu al mutarashih bi tahlil wa munaqashati an nas mutarashih bi ki nga xamante ne mooy def examen bi ci jëmmi ard bi ci lay tàmbalee def li nga xamante ne moom la ñuy woowee taxlil mooy faram-fàcce wala munaqasha munaqasha nag buñ ko waxee du werante du werante déedéet munaqasha mbokk yi niñ koy defee mooy jëmmi mawdon bi ngay teg boo ko tegee doo ci nekk sax di naan moom euh, lii mu def nii waru ko defee nii masalan ne masalan ci misaal ba mu bu ma bëggoon a munaqasha lii damay naan mbind muy kat ni ma ko gisee nii rafet na waaye lu tax ñuulul kon xanaa li mu nekk ci biir lu zone li moo tax ñuulul ma ne ko kon léegi est-ce buñ ko weexaloon ginnaaw gi ñu ñuulal biir gi est-ce que du gën a rafet maam munaaxasha noonu lañ koy defee du càgg ne da ngay jël yëf yi sànni fële mais da ngay waxtaan ak jëmmi ki def nas bi waaye booba maam anaasir yi nekk ci biir moom ngay waxtaanee. nangam gii kat gis naa ne nangam gis naa ne nangam gis naa ne nangam kon xeetu munaqasha foofu daf ci am solo mooy nga xam ni ngay defee munaqasha bu jaree sax ci def benn benn namuza ci anam googu eh, i'timadan ala asila al matruha asila yi nga defoon ci ci ci ci muqaddima bi ci ngay sukkandiku pour taxlil ci ngay sukkandiku pour munaqasha kon gis nga muqaddima lu am solo la lu mënta ñàkk la ci li nga xamante ni moom mooy ci mawdu nee na wa fi hadihi wa fi hada siyaq yataayanu al ijabatu an kulli sual ala xida mooy fii liñ ci sàkku comme li ma doon wax sànq mooy sual bu nekk nga tontu ko mooy sual bu nekk nga tontu ko ci pàccam masalan laaj nga li tontul loolu mu nekk benn faqra laajaat nga li tontul loolu mu nekk benn faqra mooy su'aal bu nekk mooy liñ ciy sopp mooy su'aal bu nekk nga tontu ko mu nekk ci partie moom. Euh, finti yaamin taam mu nekk loo xamante ni tamit dafay duggalante duggalante gu mat sëkk maa mawdoo nas ànd ak mawdoo nas ba dangay xool mawdoo bi li muy wax dëgg-dëgg lan la. bu defee nga man cee bàyyi xel waaye du càgg ne da ngay bindee num la neexee waaye saa su nekk na nga xam ne dañ laa tënk ndax nas tarbawi la bo xamanteni mu wajjeh la da am fuñ la jumale leg fiñ la jumale fofu mën ta ñak faaw nga jëm fa leg bo fa jëmoon nak da nga yakal sa bop kon motax mu ne fen ci jamin taam ma al waru ñu la laaj li ngay taxlil a taxlil taxlil ba génn mawdu bi dem ci leneen lu bokkut ak liñ la liñ la laajoon kon loolu mata baye xel wi wala boog wifqa al khutta at taliya loolu nak da nga koy top ci khutta comme anam khutta ngir ñëw nee yujibu al mutarassih an sual al awwal بعرض المعلومات والأفكار المرتبطة بإشكالية أو موضوع سؤال آه، لي كيغا خامتاني موما داف كيبا امتحان بي موي دا فاي عرض معلومات ييغا خامتاني موم مو ورا نيك سي بير سؤال بو جيك معلومات ييم سي مانا генي نдах سؤال باغي ني لان موي طهاره واو léegi man bu may wax ci tahara damay wax lan moy tax tahara mana am ak lan moy xaw ñu ne tahara amna lool lepp ay ay ard la ci maalumaat yi nga xamantene mom la sual bi li nga di di laaj loolu ta ñak ak afkar yi nga xamantene murtabita bi bi iskaliyat ah bil iskaliya, afkar yi nga xamantene ñom ñoo tënku ci eh, ci li nga xamantene mom moy iska إشكالية إشكالية الموضوع أو موضوع السؤال والأفكار المرتبطة بالإشكالية أفكار yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci li nga xamante ni moom mooy problématique bi iskaliya mooy problème mooy problème bi ñu léegi mooy soal bi rek soal bi bi bi bi gaar ci biir li nga xamante ni moom mooy moom mooy nas nas bi aw mawdu soal wala mawdu soal bi kii moom mawdu soal bi afkaar yi nga xamante ni ñoo ci làmboo lépp da koy fexe jël mu alaja ko mu nekk benn faqra ci su'aalul awwal nee na yaxtimu bi rabti su'aal awwal bi su'aal ladi yali kon su'aal bu njëkk bi boo ko bindee bi sëkli faqraat da koy rabtu ak su'aal bi nga xamante ni moom mooy tege ci ci su'aal boobu mooy ñaareelu su'aal bi boo koy tontu moom it da nga koy tontu bi sëkli faqra waaye da fexe ba faqra bu njëkk bi ak faqra bu ñaareel bi ñu am relation mu nekk tamit fii insijaamin taam mënut ñàkk. من niki noon mu ينتقل إلى الإجابة عن السؤال الثاني بعرض المعلومات والأفكار المرتبطة بالإشكالية أو موضوع هذا السؤال ممتمت كذلك سؤال ثاني بتمت نونغو كدف دعي نكوي عرض wax afkaar yi nga xamante ne Euh, lënkaloog li nga xamante ni moom mooy iskaliya boobu loolu nag du càgg ne loo xamante ni dañ la koy jox nii ndax mën nañ ñoo jeex benn benn ardal mawdon boo xamante ni dañ lay wax ne euh, mawdon baa ngi ni iskaliya baa ngi déedéet waaye liñ soxla ci yow moy nga xam ne yow da ngaa war a documenté wu bu baax a baax a baax a baax a baax ci majaal bi nga xamante ni moom nga bëgg a def imtixaan ndax lu tax mooy yow boo demee ba ci saaxa bi mën nañ laa indil benn mawduu boo xamante ni yow mosoo koo gis mosoo koo jàng waaye ci taalimaat yi ñu jox ci suuf mooy sual yi ñaari sual yi ñu la jox wala boog lépp ñetti sual yi ñu jox wala ñeenti sual yi ñu jox yow ci loolu ngay binaa say afkaar kon li ci jiitu mooy nga xam li ngay def bu baax a baax a baax a baax mbokk mi kon niki noonu wa yaxtimu bi rabti sual saani bi sual ladi yali su'aal saani bi tamit da nga koy rabtu ci su'aal bi nga xamante ni moom mooy ñëw ci ginnaawam wa hakaza bi nisbati lil as'ila noonu ngay def ci yeneen as'ila yëpp da koy def su su'aal bu nekk da koy da nga koy ard ijaaba ko bi shaklil faqraat ci biir faqra boobu da nga ciy ard jëmmi su'aal bi maalumaat yi nga xamante ni moom lañ ci mën a jëlee ak afkaar yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci loolu bu ko defee loolu boo ko defee incha allah dana nekk ard boo xamante ne ard ci muqaddima ngay jógee laaj fa ay laaj ñëw ci ard bi faram-fàcce laaj yi def sa munaqasha léegi nag nga ñëw ci li nga xamante ni moom mooy xaatima mooy tëj bi mbokk mi boo ñëwee ci tëj bi ndax lii moom mooy moom mooy mawdu tatbiqi waaye loolu incha allah danañ ko bàyyi ba suñu beneen jotaay bu ko buñ ko sàkkoo incha allah ñu def ko nee na yaxtimu al mutarashih ki nga xamante ni moom mooy ki nga xamante ni moom mooy def examen bi dafay tëje ah mawduuhu mawdu bi muy def bi mulaxasin muqtadab ci tarxiis boo xamante ni tarxiis bu gàtt la lima tawassala ilayhi fi marxalatil ard ci li nga xamante ni jot na cee yegg ci marxalatul ard lan la jot a yegg ci marxalatul ard ñëw na la am na ay su'aal yoo laaj ci muqaddima bi su'aal yooyu faram fàcce nga ko ci ard bi bi sekk li faqra faqra yooyu maalumaat yi nga ci def ak ard li nga xamante ni moom mooy euh, euh, iskaliye bi nga xamante ni moom mooy war a tënk ci biir su'aal boobu boo noppee nag ci biir ard bi ba tey maam faqra bu nekk boo ko kiyee daanaka da nga ciy dugalaale maam lenn loo xamante ne ku ko gis dana xam ne lii kat munaaxasha nga fikra bi ci biir faqra bi du càgg ne da ngay da ngay bind ne ard daal di def taxlil fii daal def munaaxasa fii déedéet ci biir ñi lay corriger ci la ñuy xàmmee ni kii kat taxlil na ko ba pare waaye ba mu taxlilee ba pare dóor na ci benn benn munaaxasa loolu munu cee munu cee ñàkk kon mbokk mi dafa mel ni fii la ñuy yem incha allah di sàkku rek li nga xamante ni jot nañ ko fee def suñu borom mm, defal ñu ci tawféex defal leen ci tawféex bu ko defee mu nekk nuqtatul intilaaq ci e, mawduwaat yi nga xamante ni moom moo ñëw incha allah kon wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu